asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina bokk yi ñu bokkal dëkk ci dëkk bu sell bi di Tuubal Mahrusa seen mbokk taalibe Fallou Gala Syll mu dellusiwaat di leen nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen ko baal di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram di yëkkati ay kàddu ginnaaw bu ñu sante jullit yëpp sant taalibe yëpp delsiwaat ci sunu dëkk bi nga xam ne amuñu lu moom di dëkk boo xam ne borom bi mu koy sanc buur jàppalewu ko ci baadoole jàppalewu ko ci sanc ko woon it ngir àdduna sanc ko woon it ngir koomum àdduna def ko sañcoon ngir defaral nit ki dunduk àddunaam ba bu ëllëgee bu demee ci kërug àllaaxiraam mën a noppalu dëkk bii nag nañu xam ne diirub sëriñ Tuubaa dina ci kaw suuf mooy lu ñu xam ci ak bëggam mu nekkoon fi mu di ab dëkkam suñ boroom nattoo ko fi dëkku fi dara ndigal génne ko fi lu bàyyi ko ci boroomam mu bind xaside yu bari joyal ko jëme ko ci dëkk bi ñaan fi ñaan yu bari jooyal ko jëme ko ci dëkk bi te mbooleem ñaan yi mu ñaan jooyal ko jëme ko ci dëkk bi intérêt ñiy dëkk ci dëkk bi la waaye du intérêt moom sëriñ bi mu dikk ku ko dëkkal Tuubaa ci dëkkin wi mu bëggit sun boroom defal la texeg àdduna àggug alaaxira mbooleem ko fi mas a nekkal sëriñ Tuubaa itam sàmm dëkk bi ak sàmm wormay dëkk bi rek ci nga tegoon sa tànk tàmbalee ko ci Cheikh Mahamadul Moustapha Karim jaar ci rakkam yépp di Cheikh Mahamadul Fadal ba agsi ci jamono yi sëriñ tubaa mii fi nekk di Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram jamono toll foo xam ne lëj na te xat na ndaw ñi seen deret yëngu na seen xel jaxasoo na seeni xol mi ngi fuur waaye ànd ak loolu lépp ñoo xam ne Tuubaa gi ñu nekk buur amu fi dara Sëriñ Tuubaa ko moom ab titre foncier la bu ne ci loxol Sëriñ Tuubaa ñu def ko ci carte dante seriñ Touba bu tudd Cheikh Ahmadou Bamba kër yi fi nekk amu ci genn kër gu mën a am titre foncier lu weesu rek këyit bu mairie bi bind nga mën a am ndax dañ la koy may suñ la dee defal ak de faw nga àgg ca mairie ba te lañ la cay signeel boo ko yóbbu woon ca banque ba doo ci mën a am xaalis bu dee ci barab yi fi nekk ñu tudd ko ay barab yi administration amu ci benn barab boo xam ne bu sëñ mun Muntaxa joxonoon tey ña nekk ca barab booba duñ jóg ndax borno yooya ci turu Serigne Touba lay nekk wala turu ci kenn ci njabootu Serigne Touba gi moo xam muy arrondissement bi moo xam muy brigade gendarmerie yi moo xam muy post de police yi moo xam muy sapeur pompier yi ba àgg ci sax ci barabi fajukaay yi ak lum ci man di doon kër ga mu nekk sëriñ bee ko moom kon nag bu jamono tolloo fii àdduna bépp yëngu waaye dañu wax ne wolof nee na lu daay tàkk-tàkk bàyyi kuréel kuréel bii nag waaye waaye am ngeen ndam dañu wax ne fot tabaski fot tam xarit bëgg lekk la njuum te daloon na fi ay gone waaye ñu delloo siwaat seen xel xam ne ay doomi sëriñ doomi taalibe lañ ba sëriñ mun Muntaxa yëkkatee kàddoom ñun ñëpp ñu maase nangul ko ndigal loola te rafetal ko lii ñoo ngi leen di sant ci li nga xam ne moo woyeegun boo kii gis ngeen ne Touba dëkk bu suñ borom bàyyi xel la yàlla musal nañu ci mbooleem lii ngeen di dégg ci jàngoro yi xat-xati jamono yi xam ngeen ne Touba ni mu ci amee indépendance kenn amewu ko ci ne indépendance kon nag moo tax may yëkkati kàddu di tàllal loxo mbooleem koo xam ne maag yow ñoo bokk pas yëngu yi ñuy dégg rikk waay buñ ci dégg Touba nañu warmaal sëñ Touba ci titre foncier bi nekk Touba bu ñu fenn gone goo xam ne yëkkati nga fi dara loolu maa ngi koy sàkku di ko ñaan sama bokki jullit yëpp di ñaan it mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ñoo nekk ci rajo yi ñoo nekk ci barabu tasaarewukaayu xabaar yi ñu gën a ñaax gone yi ci ne nañu jàppale sëriñ bi ci wormaal la ko dëkk Touba bii ba xam ne du dëkk bu ñuy manifesté woo li ci des nag gone moom bu amee aw naqar wala sax mag ña am aw naqar wala àdduna bépp sax nag am aw naqar am nañ droit nag dem fuñ mën a wanee seenu naqar ñu wanee ko fa ci façon bañ koy wanee waaye façon bii ko Sénégal jógee di ko ci wane laa bëgg ne buñ ko a ñàkk def nañu génn Touba waaye na ñëpp maase wormaal Touba ci bu ko fi kenn defee ala kulli xaal xam ngeen ne jamono xat na lëj na réewum senegal bëggut kuy neewal doole kenn ku yàlla bind réewum senegal réewum teraanga la waaye réewum jàmm la réewum sutura la waaye réewum bokkoo la bokk yi ko ëpp doole naj sa morom loolu géej rek la xaj ca diggante jën ya waaye doomu adama loolu doo aw doxinam kon nag su fekkee ne yàlla dogal na moo xam ñu ëpp doole nit bëgg koo jaay doole ña joxe woon doole yow sañ nañoo jàppoo seeni loxo na ko nag suñ doole nga yoroon kon doog ko jaay maa ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.